ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم سنسل برام سبحانه وتعالى cantugu màgg te kawe cant goo xam ne dana tolloo te yemoo ak màggaayu sunu borom ak kawewaayam ak sori goo xam ne sunu borom subhanahu wa taala sori na ko léppi sikk ak i ayib ak ay manqué manqué ñu ngi koy seedeel tey gëm ak matam aku ñàkk tëleem ci dara akuk kaweem akuk wéetam ci nguuram ak sori goo xam ne sunu borom sori na ko lépp loo xam ni mooy wane manqué manqué yi kañ koy askanee noo ngi julli ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal mucc ak xiiwal moom ak ay saxaabaam ak mboolem koo xam ni jaar na ci seen gannaaw di jéem a roy ci seeni jëf ak seeni wax mu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal tawfiq ak dëgër laay ñoom ñii noo ngi sant suñu borom mi nga xam ni ku màgg la ca kawe te moom mooy ki bind ba pare yamale li mu bind mooy ki bind ba pare yamale li mu bind mooy ki dogal te dogal yépp dëppoog ni mu gën a baaxee ca ñam ko dogal ci seen kaw moo wàcce tawam ci kaw suuf mu génne gàncax gàncax googee doomu aadama yi jariñoo ko seeni jur tamit man cee jariñoo sunu borom moo sàkk doomu aadama ci ban bu tooy xepp di rimbi rimbi comme kal faxaar comme ni ko sunu borom di waxee ci alquran bu mu noppee ca loolu mu bind jinne wala seytaane ci tàkk-tàkku sawara malaaka nag sunu borom bind ko ci leer sunu borom day moo bind góor moo bind jigéen te ñoom ñaar ñëpp ginnaaw bu seen cosaan nekkee ban sunu borom mi ngi leen bind ci toqab ndox bu bàyyi ko ci góor ànd ak bu jigéen doomu aadama sosoo ca fii ahsani taqwim sunu borom day moo bind jigéen ci fàlla rek càmmoñ bu góor ca gën jaa dëngi fàlla rek sunu borom def jigéen mu nekk koo xam ni daifatil binya ku lott la ku ku néew doole la ci anam bi ko yàlla bindee subhaanahu wa taala ci wàllu jëmm waaye nag kabiratul qadre inda allahi subhaanahu wa taala sunu borom day bind na ko ci fàllare mu nekk lu dëng mu nekk ku lot ku doyati ci jëmmam waaye day sunu borom subhanahu wa taala def ko mu nekk koo xam ni kabiratul qadr inda allah ku am solo la ku màgg la moom jigéen fa yàlla subhanahu wa taala wa bil misaal yattadixu lmaqaal misaal day sunu ko joxee yaakaar naa ni li may wax dana gën a leer ànd leen ak man ci ak taxaw seetlu bu gàtt ñu xool addina bi ak ni ko yàlla subhanahu wa taala mooñee ak ni mu ko bindee ay nit jaaroon nañ fi yoo xam ne yu baaxoon lañ jamono bi yàlla yónni ay yonent yonent bi fi yàlla mujjee yónni muy Isa ba mu fi jógee doomu aadama yi nekk ci ak ngëlëmte ak cànkute mu mel ni mbon mbon ak lëndëmte ak réer ak bokkaale yàlla tooñ ak mananteeg lekkantey alal ak gën a bonante gën a ñaawante ay jikko moo feesoon yàlla ci kaw suuf ci jamono bi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga def ak taxaw seetlu bu gàtt ànd ak man ci benn siècle wala ñaari siècle rek tombeek bi fi yonent bi ñëwee ak bi mu fi jugee yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam man fee formé ay nit yoo xam ni ba ñu tëbee seen tëb bu njëkk ga te la seen doole fësoon seen xereñe fës daj àddina bi kap Europe ba Asie ba Afrique ba foo wër tey ci ruqantaa ci addina bi da ngay gis ni wasaara nañ fa ak li ñuy néew néew lim ak seen départ li muy nekk bërki démb boo bërki démb ñu fexe ba wasaare seen diine ci kaw suuf fexe ba wasaare seen làkk ci kaw suuf fexe ba wasaare seen ay aada seen civilisation ci kaw suuf fexe ba wasaare seen jikko yu rafet ci kaw suuf ba ku leen bañit xam nga leen ndax seenu siiwaay la shakka ni loola question bu rëy waroon na caa toog muy ñii fu mu génne ñii ku leen jàngal ñii ana yan moyen lañ amoon ci départ ba mën a am lii tontu yooyu yëpp daanaka boo ko doon gam-gam lee su doon ci jamono tey liñ koy tontul da ngay gis ni tontu bee kon lu ñàkk solo lay doon ci doon keppaaru benn waay boo xam ni yàllaa ko baaxee def ko yonent tuddee ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko mboolem jumtukaay yi ni yaree ak a defaree addina ci ron keppaaru waa jooju lañ nekkoon seeni jaasi di xomaat du mën a am yu bees seeni yëri di xotteeku du mën a am luñ ko sopparñee seeni kër di nekk ay mbaari ñax ñu nekk ñu néew doole ñu lottu waaye wasaare kaw suuf diineeg jàmm sikk nekku ci ni ñooñu ku xool ba ci biir da ngay gis ni góor goo ca xool rek ndekete yoo am na jigéen ju baax di nekkoon ca gannaaw di ko di tax pour mu jëm ca kanam jigéen jooja nag illaa mu nekk yaay wala mu nekk soxna kon ndekete góor yooyu li ñuy yéeme yéeme koo ca xool rek am na jigéen ju baax ju nekkoon ca gannaawam di ko jañax formé ko defar ko yaakaar naa yaayu abdullahi ibni zubayr muy asma defe naa soriwunu xissab asma soriwunu jigéen jooju nga xam ne bi doom ji muy abdullahi ibni zubayr jàmbaar ju mag jooju nga xam ni su ma dikkoon rek tey pour waxal leen ci dundam wallahi di ngeen yéemu ci yàlla subhanahu wa taala ndeke kii tur yi ngeen di dégg ak jëf yi leen di waxal ndekete sax dañoo dañoo bokkut ndax mu jàmbaarteem ak ragal yàlla ak tegoom ci yoonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam danaan jàpp doom ji di ko dóor dóor yu metti di ko jubbanti di ko yàq nit ñi naan kii de dee mu rey doom ci lan la doon wax mu ni képp koo xam ni jàpp nañ dama kaa bëgg a rey wala gaañ koo ko tax a jóg gaañ ko ko tax a jóg mu ni faqat kadab kooku li muy wax na xam ne du noonu waaye dama koy yar di ko jubbanti ngir ëllëg mu nekk jàmbaar ju jariñ askanu Muhammad te wallahi li ñu ko doon waxee noonu la amee yaay jooju muy asma ci gàttal rek ngir jàll keroog bi abdullah ibn zubayr di xeex ak xajjaaj muy waa jooju nga xam ne ku def ay musiba yu rëy la ci xeetu muhammad ci rey ay saxaaba ak ay nit ñu baax ndax moo rey abdullah ibn zubayr mii may wax ba pare yemul ci rey ko wékk ko ci ab pendre ko comme ni ñuy def ku ñu rey ba pare salb ko wékk ko ci dëkk bi ay fan nit ñi di ko romb ngir toroxal te kim rey mooy doom ji njëkk juddu ca ba jullit ñi gàddaay dem Madina ba yonent bi kontaan ci ba tufliti yonent bi yu ànd ak tàndarma juñ yéy moo njëkk a dugg ci gémmiñam ndax bañ ko waxee yonent bi rek ci la daal di ñuy defal ko loolu sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xam ni songoom ak xajjaaj tar na lool doom ji daa ñëw ni ko di ko tàggu si ñu ko maa ngi yaakaar ne yëf yi fi mu toll tey tar na xam naa ne bii yoon moom gëwmuñu danañ danañ gisantewaat ndax yaakaar na ne bu jógee ci yaay ji bii yoon moom danañ ko rey ndax mbir mi tar na te moom bëggut a deltu gannaaw waaye déglul li ko yaay ji wax yaay ji dafa làmb yére yim sol ni ko sa yére yi nga sol demal nga summi ci ko ndax yére yi ku fas yéenee xeex du yi yére ndax yére yi da lay teree nekk jàmbaar booy xeex fekk yaay ji boobu silma xana nga xam ngeen asma am na téeméeri at mu jëntal gi silma xana dooga faam mu daw song ko ni ko su la wóore ni yàlla moo tax ngay xeex su boobaa na nga continuer ci li nga nekk bul ci deltu gannaaw ndax ay jullit yu bari mos yàgg nañ laa topp ba faatu nañ ci lii nga xam ni moom nga leen di woo bu fekkee gëm nga ni ci dëgg nga nekk bun la masa woo ci benn stratégie wala yoon woo xam ni ah say mbiri bakkan da cay am nga arrêté xeex bi te fekk doomi jàmbur yi la doon topp ngir yàlla dee nañ ca ba noppi dee rek toppi leen moo gën wala nga am li nga doon wut waaye su nekkee yëpp nga ci sa xol bi ne yàlla taxut ngay jëf suy boo nga xam ni perte nga pertaange joo xam ni pertaange dootul amat ci ginnaaw doom bi ca la ko xamale ni ko séede na ne séede loolu yàlla ni gëm na ni yàlla rek moo ko tax a jóg ca la ko yaay ji ñaanalee bàyyi ko mu dem jataay boobu moo mujjee nekk jataay bi asma gi jël gisante doomam muy Abdullah ibn Zubayr loolu ci gàttal la rek di la wan yaay ju baax na ju nekkoon ci ginnaaw doom ji di janex yaayu Anas ibn Malik yaakaar naa sooy wuleen xam ngeen ni kookee nga xam ni bi anas di nekk xale bu ndaw bu tuuti toll ci jàng wax ci la ko doon jàngal muy wax laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah ba maalik naa ko yow mii da ngay yàq da nga bëgg a yàq sama doom ci mu ne ko dee yàquma ko dama koy defar kon ku xool anas tey fi mu mujje ak tawfiq yi ko yàlla defal nga xam ni anas ibni malik bokk na ci doom yi gën a barkeel ci saxaaba yi nga xam ngeen ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon na ko yàlla na barkeelal jabootam anas ibni malik ci lu amul benn werante téeméeri doom ak ñaar fukk moom amul lu ko ci lu amul benn werante loolu moom werante amu ci la ko ëpp kay nu mu toll moom la ñuy wax waaye téeméeri doom ak ñaar fukk moom am na lu ko ëpp am na benn feebaru pet mu mas a am juróom ñett fukki doomam dee nañ ci kanamam ci musul leen ci toolam ñaari yoon la meññ ci at bi kooku yaayam mooy anas kon jigéen bu baax moo nekkoon ca gannaawam di ko jañax yaayu imam ahmad yaayu imam ahmad ibn hanbal yaakaar naa ni soriwul ahmad ibn hanbal imaamu ahli sunna wal jamaa imaam ju mag jooju ngay dégg bi muy nekk xale bu tuuti yaay ji bu fajar jotee waxuma la waxtu julli mu koy yóbbu jàkka jana julli ci waaye bu fajar jotee yaay ji day ànd ak imaam ahmad te booba imaam nekkagul imaam nekkagul borom xam-xam lu dul xale bu ndaw la day ànd ak moom yóbbu ko ba ca buntu jàkka ja yoor doom ji mu dem ca sàppee góor ña bu jullee ba noppi mu jàppaat ci loxo bi indi ko fajar bu jot noonu la daan jëflanteeg moom kon kooku xam ngeen ni bu leen ma laaj yeneen waxtu yi nun doon def ak moom yaayu imam Bukhari yaakaar naa soriwul imam Bukhari xam ngeen ni ci gàttal rek bi mu juddoo dafa silma dafa judduwaale kumba waaye fekk na yaay ji mi ngi doon nisal ak a ñaan yàlla am doom ju baax ju ragal yàlla ju defaru tey defare noonu rek ci la doom ji juddu andaalewul ay bët yaayu imam Bukhari di la ko jooyal jooy yu metti yu tar yoo xam ni ngir rek lim mébét ci doom ji noonu rek mu tëdd ba guddi rek gént sunu borom wan ko ci ay nelaw ne ko sa doom ji day commencé naa xool te sa jooy yu metti yi ci lañ dafa yee dafa yeewu rek dem xool ba di gis xale bi xoolaat mel na melo yaayu Sufyaan ak Sawri imam ju mag jooju nga xam ne yàgg naa joxe misaal ci ni ak ragal yàlla mi yeggoon na ci bu musaan a gis lu bon su ko mënul dindi dafay toog fa mu toog foofu di jooy ba keroog mun kar ba di def imam jooju muy Sufyaan Sawri yaayam dafa daan wax ni Sufyaan fas yéeneel futteeku dem jàngi man sa yaay maa la yoreel sa dund ak am solo yaay yi di wax lii seeni doom bu mu la yitteel loo dundee wala loo jëndee ay téere man sa yaay comme yàlla may na ma man méccam ràbb dinaay ràbb di la dundal su boobaa yow deel jàng man sa yaay may liggéey pour ngay dund benn bis Sufyaan daa jàng ba wàcc yaay ji mu ne ko waaw Sufyaan ndax li ngay jàng yaa ngi koy jëfe saa boo yëgee ni li ngay jàng yaa ngi dollee su boobaa day xamal ni xam-xam bu barkee la bu jër a continuer waaye saa boo jàngee fukki aaya mbaa fukki xadiis te yëgoo ak dolleeku su yeboo nga xam ni xam-xam boobu da lay alak waaye jëriñu la subhaanal malik al quddus xoolal yii yaay ñoo nekkoon ci ginnaaw boo yii ma lay wax yëpp kon nag dëgg na pour ma mën a wax laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaana xadiisan yuftara dëgg-dëgg waxtaanee ñii moo xam ca góor ña la moo xam ca jigéen ña la ak waaru mi ngi ci li ulil albaab yi ñeel borom xel yi maa kaana xadiisan yuftara lii de nekkul ay sos wala ay nitali wala yu ñuy créé di ko inventé déedéet waaye mbir la mu am mu sax borom xam-xam yi lislaam yi wattul nu ko lenn li alquran nit li ñu ko lenn li rot sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon daal ginnaaw tàmbali bi sabab la woon ci tax ñu amoon yéene deltuwaat gannaaw nafaraat bu baax dund salafu saalih yaakaar naa ni man ak yéen fi ne ci muqaddima biy jàll ànd nañ am yëg ni yëg-yëg ci ni suñu bëggee baax wala lu bëgg a defaru awni yoon wu gën gën a gaaw yoonu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye buñ ca gënee jaar buñ ca bëggee jaar utuñu gidd wala gindikat bu ñuy wan yoon wi wu gën a gaaw salafu saalih muy mag bi baax bi mag ña nag su ma ko waxee maa ngi ca namm saxaaba ya ak taabi'un yaag ñi demee noonu jaadu na léeg-léeg bu ñu doxee ay jéego yu bari ñu deltu gannaaw nafa xool mag ñu baax ñoom ñun nuñ doon dundee ba suñu borom gërëm leen nuñ meloon ba taalib yii téere yu bari te barkeel nuñ meloon ba jur yii doon yu baax nuñu meloon ba liggéey liggéey yu yéeme yi nga xam ni buñ la koy nitali da ngay foog ni jëfi malaaka la ci seen laay kon jaadu nañu nafar dund yi nañ noonu man nag damay faral di yitte wóolu bari di wax lu jëm ci mbirum jigéen ñi li ma ko yóbbee nag mooy seetlu gu ma seetlu ni xayaatu saxaaba yeeg conférence yeeg xayaatu taabi'un yeeg waxtaan yi su fekkee bàyyi ngeen xel ci lii may bëgg a wax misaal yu bari bu ngeen seetloo bu dee fukk juróom-ñeent yëpp ay góor lañ benn jigéen rek lañ cay génne mu mel ni kon jigéen ñi dañoo defut dara fekk na boo jàngoon dëgg dëgg dëgg dëgg ñu waxal la ci jigéen ñi da ngay far sax fàttali góor ñi doon def ñaareel bi génneeku ku ma génneeku ni jigéen ñi seen ak defaru mooy defaru société bi waaye seen ak yàqu mooy yàqu société bi loola sabab la ci léeg-léeg bu ñu doxee ay jéego dañuy nam ma deltu gannaaw nafaraat waxtaanee waat lu jëm ci jigéen ñi xam ngeen ci jamono yële passé doon nañ jéem defoon bind ci soxna Aïcha radiallahu anha di jigéen ju màgg di soxna yonent bi tuumaal ngeen ko tuumaal ak njàngat yañ ca mën a génne ci wàllu yar loola ba koy def ci buntu bu mel nii nañ ko dugloo woon wa kadalika tamit waxtaanee alqaabidatu ala aljamar jigéen ñi nga xam ni tey nëb gi nu nëb ci seen diine mën nañ koo gam-gam léeg nëb ci xalu sawara ci metti waaye ak taraay waaye ñu ngi koy muñ comme ni ko yonent yàlla waxee woon waxtaanu mel noona nag moo ko wutay wi mën naa ni ñoo bokk genn dat genn garab bu nu saxee waaye ay bànqaas nag buñ ko bokk waxtaan wooyu waxtaane woon nañ ca jigéen ñi salafu saalih seeni melokaan seeni jaamu yàlla seeni ragal yàlla waxtaan wu gudd la xëy na ku ca dellu mën nga caa am njay insha allah wutay wi nag maa ngi ko def ci waqafaatun min axbaari nisaai salaf waqafaatun min axbaari nisaai salaf ay taxaw seetlu ak i settantal yoo xam ni maa ngi ko bëgg a jagleel kese jigéenu salaf saaleh mag ñu baax ñooñu seeni jigéen ana seeni jëf ak seeni jëflante ci ay tomb ak seeni melokaan ak seen ragal yàlla ak seeni may yu leen yàlla mayoon ci dund yooye insha allah wutay wi ci lay jëm ñàkkul jamono dana mos a ñëw ci tawfiqu yàlla subhanahu wa taala insha allah ñu waxtaane waat weneen waar ndax waar yi lu yaatu la wuñ ci waxtaanee ba nga jàpp ni rek wuñ ci waxtaanee ba nga jàpp ni ah liñ waxtaanee lii day daa doy sëkk amuñu la leen fekk na loole wenn xàll rek lan jaar ak yow am na yeneeni xàll yu bari yoo xam ni mi ngi ci nisar nañ ci sunu dund bu nu yàlla defalee tawfiq xàll wuñ gis ni buñ sa jaaree jariñu ca jariñu ca rek incha allah danañ ko def bu ngeen mënee buus tuuti ci kanam mu daal di daal kon tombak waxtaan bi mooy waqafaatun min axbaari nisaai salaf waqafaatun min axbaari nisaai salaf ay taxaw seetlu yoo xam ni maa ngi ko namma def ci jigéenu salafu saalih al waqfatu al ula mooy taxaw seetlu bu njëkk gi fii maydaani talabil ilm maa ngi koy def ci géewub sàkku xam-xam nisaau salaf fii maydaani talabil ilm jigéenu salafu saalih ci géewub sàkku xam-xam gàttañu gii ma gis tey seetlu ko ci jigéenu jullit ñi ñu def ko ci sàkku xam-xam man de mënumaa dogu ci ni àpp sàngam wala jamono sàngam ci la gàttal gi googu tàmbali waaye sañ na maa dogu ci ni gàttal gi googu ni mu tàmbalee yàggut jigéen ñi gàttal ñu ci sàkku xam-xam ba féete gannaaw góor ñi ci sàkku xam-xam mënumaa joxe ab àpp ni àpp sàngam ci la tàmbali waaye mën naa leen wax ci lu wér ci ni bi mu tàmbalee moom yàggut ci jamono yu mujj yi la tàmbali jigéen ñi kay weesu woon nañ di nekk ay ndongay sàkkukatu xam-xam waaye dañ doon nekk ay sëriñi xam-xam weesoon nañ di nekk ay ndonga yu sàkku xam-xam ñoom jigéen ñi demoon nañ ba seeni martaba yeggoon na ci am nañ ñoo xam ni weesu nañ sàkku xam-xam ñoom moom ci jàngale lan toll donte sax waxin la waaye sàkku xam-xam moom kenn du ko wees loolu dama la ci jox ay firnde bokk na ci mooy seede bu mag bu rëy boo xam ni imam bu mag boo xam ni bëgg nañ ko lool comme ni ñu bëggee mbooleem aimatul umma muy al imaamu zahabi borom siyaru alaami nubala al imaamu zahabi dafa taarif benn téere bu ñuy tuddee misanul i'tidal fi naqdi rijal al hadith misanul i'tidal fi naqdi rijaal al hadith peesekaay bu maandu bi bi nga xam ni ci la ñuy peesee ñi nga xam ni ñoom wér nañ ay góor ak i jigéen lañ yu wér yoo xam ni suñu nettalee jëlee ci yonent bi mën nañoo jël seeni wax maanaam daal xam-xamu xadis pour nga xam ni kii buy carale gi gu wér la ndax diw ñoo moo ci nekk carale gi wérul ndax diwa ci nekk peesekaay bañ leen di peesee moom la téere bu tudd muy misaanul i'tidaal fi naqdi rijaalil xadis soo delloo ci téere boobu nangami junniy nit nangami junniy nit yoo xam ni kenn ku ca nekk ba ko ca imam Zahabi tuddee te ay góor lañ dañu ñii de kenn ku ci nekk dañ kaa tuumaal ba kenn du jël xadiisam ba mu noppee dafa wax ju am solo joo xam ne jigéen ñi war nañ cee bàyyi xel bu baax lu mu wax mu ni wa ma alimtu min annisaai man ittuhimat wala man tarakuha waaye day jigéen ñi xawma ci ñoom kenn koo xam ne dañ naan kii de tuumaal nañ ko ba kenn du jël xadiisam wala koo xam ne dañ naan bàyyi nañ ko ba kenn du jël xadiisam allahu akbar xoolal jigéen ñi ni ñu baree amal na kenn ci nit ñi ku gàtt ak gis-gis mën na ni ah xam naa ni góor yi ñoo ëppoon luñ doon soloo xadiis moo tax li ñuy tuumaal ci ay góor moo ëpp li ñuy tuumaal ci jigéen kooka li ma koy tontu mooy dafa xamul ni li ko tàmbalee ci jamono yi Aïcha radiyallahu anha ba jamono yi imaamu Zahabi li jigéen ñi wattu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xameesul jamono joo xam ni ay jigéen jàmbaare nañ ca noona kon nekk jigéen ñi dañ doon soobu ci solo xadis comme góor ñi waaye mu ni xawma ci jigéen ñi ku sàggan koo xam ni dañ naan kii day sàggan na ba dañ koo tuumaal kenn du jël xadisam wala sax wàcc nañ ko xadisam wérut loolu wax dëgg yàlla wallahi tagg wu màgg la wu rëy boo xam ne war naa yëngal xolot bépp julit bu jigéen mu koy ndamoo ci julit yu jigéen yu yàgg yee seen njàmbaarte yeggoon na ba dañ daan tuumaal góor ñi ci ilmul xadis waaye duñ tuumaal jigéen ñi ci ilmul xadis foofu ci mi dama lay waxal wa bi misaal yettadax l maqaal joxe misaal moom toujours wax ci lay gën a leeree al imam al xaafid ibni asakir al imam al xaafid ibni asakir borom xam-xam bu mag bu mag a mag a mag ñi jàng xam-xamu xadis xam nañ li may wax ci wàllu xadis nga jógee fa defee ne loolu rek la man nga dem ci wàllu histoire wattu siira nga fekk mu ci imam bu mag a mag a mag ñi gëstu wàllu histoire xam nañ li may wax imam jooju ak li muy màgg-màgg juróom-ñaar fukki juróom-ñett fukki jigéen ak lu toog bi muy lim ay ay sëriñam limaale na ko ci bi muy lim ñi ko jàngal diw jàngal na ma diw jàngal na ma limaale na ci juróom ñett fukki jigéen ak lu topp ci ay sëriñ yu jigéen allahu akbar jamono tay bi pour nga am benn sëriñ bu jigéen bu la jàngal rek yow pour nga mën kaa ndamoo moo jafe waaye moom lim na juróom ñett fukk ak lu topp ci ay sayxa yoo xam ne jàngal na ko al imaamu zahabi ci boppam siyaru alamin nubala boo ko liiree ba mu jeex mu jàllal ba ca mujj siyaru alamin nubala téere boobu mu taalif ci dund salaf boo ko liiree ba mu jeex nga dem ba ca volume ba mujj nga xam ni de volume booba ñam cay tarjamaal ci ay góor ci jigéen tombee nañ ak jamonoom ci ñim gis ba ma koy liir bari na ñu ma ca gis ñoo xam danaan jigéen jii de jàng naa ci moom muy ay jigéen yu bari yoo xam ni al imaamu zahabi moom mii di wax wax ci borom miisaanul i'tidaal jàng na ca jigéen ñoom cheikh al islam ibn taymiya mi ngay dégg booy lim ay sëriñam da nga ci limaale ay jigéen imam ibn hajar kooku yaakaar naa lu may baamtal waaye du lu bees defe naa ba ma leen fi defalee dundam waxoon naa leen ni leen jàng na ci ay jigéen am na ca ku ca tuddoon Fatima binti bintil munajja Fatima bintil munajja ak tannuuxiya kooka imam ibn Hajar da kaa tarjamal ab téere boo xam ne da ko cay tagg lu mu ca wax mu ne qara'tu alayha kathiran min alkutub wa ni'ma shaykhatu kaanat mu ne jàng naa ci moom téere yu bëri bëri bëri waaye sëriñ bu baax a ngi nii waay nga defee ni góor lay wax fekk jigéen imam ash-Shafi'i booy lim ay sëriñam da nga cay limaale ay jigéen imaamul Bukhari booy lim ay sëriñam nga lim cay jigéen ibni Khalid Khan booy lim ay sëriñam nga lim cay jigéen imam ibni Hibban xaw tuuti kon daal ma ne la imam joo lim xaw a génn ay sëriñu jigéen dëgg-dëgg lii lim lay wan mooy kon firnde la ci wan la ne la jigéen ñi musuñoo gàttal ni ci sàkku xam-xam lu dul jamono bari ci déen jële Urwa ibni Zubayr mooy nettali mu ni gisuma kenn koo xam ni gën naa dégg fiq gën a xam nu ñuy fajee fajum sunna gën a man way way nag way am njariñ ci lislaam yi ah ci ndey Aïcha radiallahu anha Abu Musa al Ashari mu ni ñun saxaaba yi yonent bi lay ñun paa yi ñun magi saxaaba yi yonent bi saa bu nu masaana am lu nu lënd ci xam-xam xadiis yonent bi mu ni saa bu ñu demee ci Aïcha dañuy fekk lu seddal suñuy xol ndax dañuy fekk waxtu na ko mën na koo nit kon lii firnde la bu lay wàññi kon nekkati ñooñu ñu futteeku woon nañ ci xam-xam ak am ko ak di ko wasaare ummu darda ummu darda ak soxna mu ne ko ah loolu koy xam nga ni ci dul laaj loolu koy bëgg naa ko waaye man nii ma màggatee ak ñàkk ba aw ma lu ma lekk kan moo ma ñooy soxna saa yi ni ko xanaa man allahu akbar mu ne ko xanaa man sa sëriñ waa ji gëmiwu ndax doom ji ko saa yi nar a may doomi buur ca jamono jooja amirul muminin ki nekk njiitu jullit ci addina bi doomam ñëw na di labat si doomu saa yi saa yi bañ biñ ko laajee lu tax nga bañ mu ni doomi buur moom ku ko may sa doom xam nga fu muy fanaan ci la li oor ak xaalis waaye bul xam fan ba fan la fas fasam ak diine nar a fanaan moo tax ma bëgg koo may koo xam ni bu ma xamul fa muy tëral ak wetam di fanaan yi dinaa xam fan la fas fasam fan la fanaan allahu akbar Saïd ni ko dinaa la may sama doom insha allah waaye di daal amul lu dul xalqa bi tas mu dem toog këram nekk dafa woorof muy ndogu bi mu toogee di ndogu mu dégg ku fëgg bunt bi mu ni kooku mu ni ko man la Saïd daal di fay yemee mu ni bi mu ne man la Saïd sama xel wër na addina bi yëpp ku ma mas a xam ku tudd Saïd rek ma ni waaw xanaa Saïd diw la xanaa Saïd diw la mu ni ba léegi sama xel dajagul Saïd diw lañ mu sañ lu tax xelam dajul ni sëriñam bi tàqali ko léegi ci ngoon la mooy nee na Saïd lu mat ñeen fukki at kenn mësu koo xam ci taxawaaloo génn dem fenn du jàkka jàng jaamu yàlla rek kon lu muy wut sama kër man mu ñàkk solo bi ndeke saa yi booba may na ko doom ji ba waajal ko jàpp ci loxoom nag def lu kenn musul def jàpp ci loxoom indi ko ba ci buntu kër dinaa yi faral di wax mbokk yi saa bu ma nekk nekk sa beeg si fii lii day bu ñu dundee ba man koo dekkal may sa doom ji jigéen waaju baax ngàpp ci loxoom bañ caa boole jigéen ñaar kenn ak i wareen yóbbul ko sa bopp ba jox ko borom këram nun day ñun ñi koy wax buñ ko mënta jëfe bu nu doxoon ba gis kenn ku ko jëfe ci xeetu Muhammad sax day sunu xol mën a seet xool ba gis ku la doy ci xam-xam ak ragal yàlla nga may ko sa doom ci lu yoonu kenn néew ci lu dul lenn wareef yoonu jigéen ñi xew-xew tey amu ci wàll nga nàbb ci loxoom yóbbu ko ba ca biir wallahi di nga dekkal lu rëy rëy rëy rëy ci sunni waa ji ne ne ma ubbi rek muy Saïd ibn Musayyib mu ne ko man de maa la digloon dinaa la may sama doom bi jigéen moom laa muur nii moom topp sama ginnaaw muy daal di koy ba wax mu dugg sama biir nee rek mu daal tourné dem yoon xista bu gudd la waaye li ma ci soxla rek mooy waa ji fanaan ak moom ba fajar jot mu xëy sol yére nar a génn soxla si ko foo jëm mu ne ko damay dem ila majlis Saïd ci balaa xalqab Saïd laa bëgg a jëm damay sàkku di xam-xam mu ne ko ijlis uallimuka ilma saidin foogal man dinaa la jàngal lu la mboolem lu la said doon jàngal tey ma jàngal la subhaana rabbika al-qudus xoolal bàyyi di yar na doom ji yar boo xam ne yegg na ci mboolem xeeti xam-xam yi bàyyi doon jàngale doom ju jigéen ji mën na koo jàngale ba borom kër gi gëy xëy di xëy di jàngi mu ne ko toogal mboolem lu la sama bàyyi doon jàngal léegi man mën naa la koo jàngal yaa lahaa min ni'am lii mooy xéewal lii mooy sëy lii mooy mbaax lii mooy jub lii mooy dëgg lii mooy dëddu àddina lii mooy ragal yàlla alxaafid alxaytami borom xam-xam bu mag la moom moom it doomu sëriñam la takkoon alxaafid al iraqi xam ngeen xaafid al iraqi mii ma wax jàngal na ibne hajar al asqalaani ibne hajar al asqalaani ak alxaafid al haysami ñu bokk benn sëriñ muy alxaafid al iraqi alxaafid al iraqi soxnaam soosu ah wala alxaafid al haysami soxnaam soosu nga xam ne mooy doomu alxaafid al iraqi su borom këram mosaana toog di di di di di taarif ci xam-xamu xadiis soxna si day toog di ko jàppale ci taarif maanaam soxna si day taarif lee alxaafid al haytami di taarif lee maanaam soxna si moom wees na xam-xam bay jàngale waaye léegi toll na ci war a mën a taalif bu si cheikh bi di corriger lim taarifoon ba di ko corriger cheikh bi day jël yee téere di ko corriger di ko defaraat di ko wéral soxna si jël yeneen téere moom it di wéral ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk yegg nga ci dayoo xam-xam boobu Alauddin as-Samarqandi borom xam-xam bu mag la taalif na benn téere bu siiw bu ñuy tuddee Tuhfatul Fuqaha téere bu mag la dafa amoon benn doom bu ñuy tuddee Fatima doom jooju doom la woon ju ju ju ju ju jàmbaare ci sàkku xam-xam dem ba yegg ci Tuhfa jooju nga xam ni téere bu mag la woon ca jamono ca bàyyam taalif ko dem na ba mokkal ko lépp ba mën koo jàngale. góor yi àddina bi dañ ko yëgee commencé di def ay jéego ngir labat si soxna soosu ngir labat si soxna soosu biñ ko labatee bàyyi ji ne du ko maye ndax ñoom yàgg nañoo mel noonu buñ gisul ku leen doy duñ ko may seen doom ah bi loolu amee amul benn ndongo bu ñuy wax Abu Bakrin al-Kasani Abu Bakr al-Kasani dafa taalif benn téere bu ñuy tuddee al-Badaa'i'u mu sarxa ci téere bi nga xam ni sëriñam moo ko taalif buy ak Tuhfa maanaam Tuhfa Tuhfatul Fuqaha Alauddin Samarqandi muy sëriñ bi moo ko taalif al-Badaa'i'a ndongale di Abu Bakr al-Kasani moo ko taalif bi sarxa téere bi sëriñam bi mu ko sarxa ba sarxa bi yegg mu yëkkati ko jox ko sëriñ bi ni ko ah man de sa téere bi góorgóorlu naa ba sarxa ko sëriñ bi xool ko kontaan lool ba mu paree mu organiser ak feet ñi ko kontaante gi ma kontaante firndeel bi ma koy firndeel mooy sama doom ji laa lay may muy Fatima moo tax borom xam-xam dañ ko daan cokkaase di ko tooñee naa ko ah moom day maanaam saraxa tuxfatahu wa tazawaja ibnatahu moom la daa saraxa téeréem takk doom la loolu kon firnde la bu lay wan ni kon ñoom àggoon nañ ci xam-xam foo xam ni foo ko takk rek wees na ko misaal yi ma mën a joxe ci buntu boobu ngir bañ a guddal lu bari la loolu dëgg-dëgg kon tey war nañ cee daal di yëkkaat ni kon ndeke gàttal gi bi ñu tàmbalee yàggut jigéen ñi di woon nii lañ leen xamee woon gàttal ci xam-xam ba gis jigéen ju jàng da lay jafe waxuma laa gis ku mën a jàngale tey boo yoroon ab téere bi gën a tuuti muy usulu salaata al usulu salaata nga bëgg rek jigéen ju la fa jàngal tey nga am jafe-jafe al arbaina nawawiya ñeent fukki xadis yu yomb yooyu boo leen wër pour nga gis jigéen ju la fa jàngal tey nga am jafe-jafe wallahi lii gàcca la bu ñu xamoon dëgg dëgg dëgg lan mooy gàcca danañ xam ne loolu gàcca la te gàttal lu gii bi mu tàmbalee am yàggut waaye da doon am kay mooy bu nu mën a góorgóorlu ba nekk ay sayxa tamit nu góorgóorlu ba nekk noo xam ne moom mën nañoo jariñ suñu bopp ci xam-xam jariñ sax ñeneen kon ma waxal na jigéenu salaf weesu woon nan di di di di jàng kese waaye demoon nañ ba am ay sayxaat ak ay jàngale al imaamu Tabaraani moom nga xam ni moom ñi gën a yéeme ci borom xam-xam yi ci bari sëriñ su ko jàngal boo doon lim li ko jàngal ci ay jigéen tey nga yéeme ci yàlla subhanahu wa taala kon lii ak soññaat la ak bàyyi loowaat xel la jigéen ñi ñu xam ni jotaat na jaaduwaat na ñu futteekuwaat ci xam-xam jot na jaaduwaat na ñu xoolaat bu baax a baax a baax doxalin wi ci deltuwaat gannaaw soobuwaat ci xam-xam la allah suñu borom dellu si waat jigéen ñi mel noonu al waqfatu thaniya nisaau salaf wa zuhdu min addunia wa rida bil xalil tombak taxawaayu ñetteel bi ñaareel bi jigéenu salaf ci dëddu àddina ak doy loolu néew yi leen yàlla wërsëgal ci poñetam àddina lu ñàkk solo fa wallahi summa wallah لقد كانت نساء السلف أبعد الناس إلى التنافس في هذا الدنيا الفانية جيجين سلف أكا نيو صري ون أكا نيو صري أي يون يون يون يون يون أكا نيو جن صري مول نتي كوسوف تقتو poñati adina mu ñàkk solo mii nga xam ne maam dafay jeex ak ñoo sori woon xëccoo adina ak ñoo sori woon di ndamoo poñatam adina ak ñoo sori woon di dajale puuri ci adina mii nga xam ne da ngay dee ba ko lu waral loolu ni nu gëmee woon ni yàlla dafa waajal ñi gëm yàlla aljana joo xam ni lu waay di dabu ci bànneex rek ma nga fa niñ ko gëmee woon dafa ëpp ni nu gëmee woon ni yàlla waajal na aljanna joo xam ne lam fa waajal gaa yi ko doon topp ci xéewal lu waaye di dabu ci bànneex bis boo yegsee aljanna sa xol fees ñoom loolu dañ koo gëmoon te gëmantuwuñu ko moo tax dëddu woon nañ adina waaye sori woon nañ puuri ci adina sori woon nañ tamit poñi ci adina bu ngeen mënee puusaat ci kanam tuuti dana baax kon day waay jaadu nañu xam ni sori woon nañ lool ñoom jigéenu salaf ci xëccoo àddina dajale ay matériel taaral ay néeg dajale ay col feetal ab waxande ak yére déedéet ñoom di seen mbir ma nekkoon na leneen lu dul loolu amir dafay nekk li mu ne yonent yàlla bi de bi mu faatoo sallallahu alayhi wa sallam te bàyyi leen xel misaal mu am solo bi may joxe te maa ngi ciy taamu biir kër yonent mi nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñoom mu ne yéen ci yàlla bi de bàyyi wut lu am solo ci këram lu dut dëkkuwaay bi ay soxnaam dëkkoon xanaa suuf soo xam ne daanaka daf koo defoon sax sara sabaxul Muhammad ibn Amir mu ni toxal nañ jëlee ci Muaz ibni Muhammad al Ansari muy toxal nañ jëlee ci Muaz ibni Muhammad al Ansari mu ni jëlee nañ ci Ata al Khurasani dégg naa ci Ata al Khurasani ci benn jataayu xam-xam boo xam ni Imran ibni Abi Anas ma nga fa woon muy wax ni te mu ni bi mu koy wax maa ngi koy fàttaliku bu baax mi ngi jëloon ginnaawam gi sës ko ca minbaru ca wetu armeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni man de jot naa fekkee néeg yi nga xam ni ca la soxna yonent bi dëkkoon sallallahu alayhi wa sallam ay mbaari ñax la yoo xam ni mbaari ñax yu ñàkk solo mbaari ñax yu yu yu tumuranke yu oyof yoo xam ni ñu ngi ko defaree ay lii si tàndarma mu ni benn bis rek ab leetar ñëw bàyyi ko ci njiital jullit ñi muy walid ibni abdul malik walid ibni abdul malik mu ni mboolem néegi yonent bi néegi ñax yi nañ ko màbb bu ko defee ngir ñu mën a yaatal jàkka ji néegi ñax yi daal di màbb ngir ñu mën a dugal ja néegi maanaam palaasu néegi ci biir jàkka ji pour jàkka ji gën a yaatu mu ni fa maa raaytu yawman akthara baakiyan min zalika al yawm mu ni mës na maa fekkee jataay bu mbir am ba ay nit di jooy waaye jataay boo xam ni dafa mel ni bu keroog bi li fa nit jooy keroog jooy ba mel ni dañ ni tey lañ tàgge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek toj giñ nar a toj mbaari yonent bi maanaam daaneel giñ nar a daaneel mbaari yi soxla yonent bi nekkoon mu ni wallahi law lawadittu annahum tarakuha ala haaliha mu ni man de maa ngi doon bébét dañoo waroon a bàyyi néeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noona bu ko kenn daaneel bu ko kenn màbb comme na meloon ku mujjee juddu ci dëkk bi ak loo nekk nekk gone ak ku ñëw ci dëkk bi nekk étranger ak loo fi mësul mësul ñëw nga gis mbaar yu ràpp yu tumuraante yu fënëx yooyee nga xam ni dañ naan la ca la yonent yàlla bi dëkkoon sallallahu alayhi wa sallam mu ni loolee dana dolliwaat nit ñi ak dëddu àddina ñu xam ne yonent bi ñàkk tax koo defar loola allahu akbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk tax koo def loola ñu xam kon yonent bi nan la doyloo woon ci dëkkuwaayu àddina dina leen dëdduloo ci attakaasur wa tafaaxur fi dunia njëkkalante xëccalante ci poñetam àddina bi mu ne dina leen dëdduloo ngir ñu mën a moytandiku mu ni bi mu ni tele pare mu anas mu ni bi ata al xurasaan yi pare benn waay bu ñu naan imran ibni abi anas ni ma waxoon sànq mu ni man de yàlla def na man mii di toog ci jotaay bi jot na ma caa fekkee ñeenti néeg yoo xam ne moom xam naa ni yii moom ca la bokkoon jot naa kaa gis néeg la yoo xam ni tabaxi ban lan ko defaree woon def ci kaw ay lii si tàndarma mu nekk néeg yu tumuranke yu gàtt lool yoo xam ni boo ko xoolee bu nee la fii la yonent bi doon dugal ay soxnaam yow doo ko sax a xaw a gëm muy firndeel mu ni damay dëggal li nga wax ki doon nit li waxtaan mu ni ko damay dëggal li nga wax am naa li nga wax ci jooy yu bari mu ni fa laqad raaytuni fi majlisin fi majlis nafari min abnaai saxaaba maa fekkee jataay boo xam ni ñu bari ci doomi saxaaba yi ña nga fa woon abu salama ibni abdurahman ca la bokkoon abu umama ibni sahl ibni hunayf ca la bokkoon xaarajata ibni zaydin ca la bokkoon mu ni ñoom ñii ñëpp ma nit li kenn ku ci nekk gis naa ko muy jooy ba ab sikkimam tooy xepp mel ni ku duppoo ndox ah mu ni wa qaala yawma idin abu umama keroog ca la abu umama ni woon laytaha turikat fa lam tuhdam aka neexoon néegi yonent bi ñu bàyyi ko kenn du ko mag hatta yaqsura annaas an il bina ba nit ñi mën a gàttañlu ci taaxi kaw yi ñuy tabax jëmale kaw mel ni dañoo gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ni wa yardaw ma radiya allahu li nabiyihi wa mafatixu xazaini dunia bi yadihi allahu akbar muy danañ gàttañ ci tabaxum taaxi kaw ak taar taar yeeg karo yeeg yi ñuy defar tey ak meuble yeeg fauteuil yeeg yi nga xam ni yow buñ nee la lii ab jullit ñi mën a cee toog sax nga danga naan danga naan déedéet muy nit ñi danañ ca gàttañlu ñu xam ne yonent yàlla bi magasin caabi xéewali àddina moom la ko yàlla joxoon kon su ko sooboon kenn du ko gën a rafet le kër kenn du ko gën a rafet le kër soxna bu dee kër yu rafet ak yu taaru yu kaweeg yu njool rek yonent bi mën na koo defar sallallahu alayhi wa sallam waaye moom moo taamu woon dundu gu tumuraanke googee loolu mi ngi ci ak tabaqaatul kubra li bin Saad kon lii da lay wan ni kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon bul ma wax mukk jamono jooju jamono ju ñàkkoon la xëy na bokkul ak sunu jamono ji man la déedéet yonent bi ak tabeem yegg na ci xëy di maye téeméeri gileem kenn nit woo kenn nit mu ñëw may ko téeméeri gileem téeméeri gileem ñaata ci junni ñaata ci million ngeen yaakaar ni su doon sunu jamono ji tey moom lay doon ba waaye doon demee seen dëkk dañuy gaaw leen ngeen tuubi man gis naa yonent bu yàlla yónni boo xam ne moom buy maye sax téeméer lay mayee noonu yonent bi àgg na ci koom-koomu àddina ba dañu jullit ñi képp ku dee te am bor ñëwal maa koy fay wax dëgg yàlla kii kon ñàkkut waaye moom moo taama woon dundee nii yar ci ay soxnaam moo taxit nii lañ doon dundee nii la saxaaba yi doon jooy ngir bëgg képp ku ñëw rek mu xool jeexintal yi waa kër yonent bi ni ñu doon dundee mu xam ne ñii ñu gàttal ñu woon lañ ci dunduk àddina gi ñaar la nettali bi maa ngi leen ko doon nettali ci nettali alqaabidatu ala aljamar abdullah ibn al mubarak mu ni sufyaan al tawri daf koo wax ni ko man daal dégg naa benn jigéen boo xam ne mi nga ca kuufa jigéen ju ragal yàlla la bi ñuy wax ummu hassaan kooku moom gis nga ko rek mooy doon lekku nga ci yàlla waaye fay nga dem ziyaara ji ko gis nga xoola abdullah ibn al mubarak mag ni mu tolloon ci xam-xam xoolal Sufyaan ak Sawri ni mu tolloon ci xam-xam ah Abdullah ibn al-Mubarak ku ko xam ak ni mu meloon ak fi mu tolloon ci xam-xam ak ragal yàlla subhanallah ku xam Sufyaan ak Sawri ñu waroon nit ci di sànq ñu ànd ñoom ñaar seqi seen i jéego dem di seeti benn jigéen boo xam ni yéemu ci moom ci jaamu yàlla moo tax ñu koy ziyaare ji muy Ummu Hassan bi ñu ñëwee gisuñu dara ci néegam lu dul basan bu dagg ak tuuti ndax sadala gu muy jëfandikoo bu dee jaamu yàlla Sufyaan ak Sawri ni ko waaw sa doomi baay yi nga xamante ni jege nañ la lool te nekk ñu am alal boo bindoon aw fooy rek ak yow ni nga màggee ni nga fonkee ñoom dinañ la jox ci alal loo xam ne di nga ci mën a defaraat sa néeg bi meublé ko jënd lii jënd lee jënd laa ndaw si ni ko subhanallah ah mu ni ko yaa Sufyaan qad kunta fi ayni a'zama wa fi qalbi akbara min saatika haadihi allahu akbar mu ne ko Sufyaan ma ma doon dégg ni mu rëyee woon ci sama xol Sufyaan ma ma doon gis ni mu feetee woon samay bët waaye kuy gën a soof tey rek yaa gën a soof sama kanam yow Sufyaan yow ku ne moo may jañax jëme ci àddina ma doon ko tiit ba mu des yow ah mu ni yow Sufyaan addina yàlla mi ko moom man musuma toog samay julli sax may ñaan yàlla mu may ma addina yàlla mi moom addina te di ko séddale musuma ko koo ñaan ma bàyyi ko bi dem di seet nit koo xam ni moomul addina ma di ko ñaan addina Sufyaan dafa jooy keroog ba ab sikkimam tooy moo tax Abdullah ibn Mubarak day nekk li mu ni mujjantal gi sax dañuy wax ni maanaam Abdullah ibn Mubarak dañuy Sufyaan at-Tawri mujj na sax dem labat soxna soose yi xam naa da nekkoon ko amul jëlul borom kër jamono jooju da ko mujj jël soxna. kon daal li ma bëgg a wax foofu mooy buntu boobu buñ ko toppee mën nañoo guddal salafu saalih ñu sori woon lañ tey li ñu li ñu nekk saa bu nu xoolee texte yi mu wuuteeg li ñuy dund. bu nu am lu ñuy sikk sàkk wala kenn ku ñuy laaj ci lañu wér ni li ñuy askanoo muy roy salaf day roy mag ñu baax ñi ci suñuy laam mooñ ñaayam waaye àggul ci suñuy xol loola nag naxuñu kenn nag suñu bopp rek lañu nax bu nu nit ñi séenee ñu génn fii ak suñu melokaan yu tumuranke ndax dafa tumuranke ci réew mi yenn melokaan yi buñ la ko dee taggee wala ñu dina ko jëwee wala ñu dina ko wax ci sa kanam ba nga di ko dégg nga foog ne yaay waaja bu fekkee wëlu ko tigal nga naq sa bopp ci salafu saala wallahi da nga yëg ni départ ko da nga yëg ni yow départ ko say daal sax solo nga ko pour war a dem fa nga jëm kon bu nu xoolee lii tàmbalee ca kër yonent bi nga romb ñi ma war a romb ñépp ba yegg si ci ñu mujj nga xool suñu jamonoy tey arati lan la jigéen ñi xëccalantu ñi nga xam ne ñoom ñoo wax dañuy askanoo tudd salaf naa fexe ba sama waxane da fees dell ak ay yére ndax yére dañu jëriñ ñu dul sol billahi alayka xoolal yére bi bees di nga sol ak lu mu rafet rafet man loolu mu ma gën a soof ba fi ne dafay tax danaa sol yére bu bees waaye man damay xam ne daanaka ñàkk koo solo sol ko moo yem ndax man li ma yëg mooy bis di ma ko njëkk a sol damay kontaan waaye dafa maa wóor ni su ma ko amee ñaari yoon ñett mu soof ma ma ne comme loo xam ne su dee ñaar ñett mu soof la wallahi la dul soofaate muy lu aljanna la moo jar a dawi moo jar a dalu si waaye nag sama waxam ne fees ngir ay yére naa am nangam yére lu bees li ne ma génn lu génn ma am ca ah événement bu am naa am ay yére sama néeg bu bu bu ñu ko dënoon sax te amul tàkk du ma fa nangoo dëkk sama nangam ji sama nangam ji mbaaram ñax mii ma wax ni ca la yu soxna yonent bi dëkkoon tey jii yaakaaruma ni boo doon lim da nga am ñu bari ñoo fa mën a dëkkal tey ci ñii askanoo bi mu sala ak xaala bu mën a am même bu doon borom kër gi daa ñàkk ba loolu la tollool yaakaaruma danañ ci dëkk man xam naa ay sëy yu tas ndax loolu dama la yóbbu suñu dëkk ah te nii fa am ak lee fa am nga ne man bu dee loolu bee mu mel sama baat subhanallahi alazim lii de bu dee moom lañ yaakaar ne mooy ak askanoo ci yonent bi ñoo ngi tooñ yonent bi ñoo ngi koy tuumaal ñoo ngi koy publicité lu wuuteeg lam doon jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu ci tooñ la bokk tooñ yonent bi bokk na ci mooy di ko publicité lu wuuteeg lam la publicité loolu yonent bi lim doon waneeg lam doon jàngale buñ ko mënta publicité nañ ca maandu ba seet ñeneen ñu mu def da ngay gis ab jullit bu jigéen boo xam ni nasalullah tawfiqa wal aafiya dëgg dëgg dëgg da ngay xaw a sax rusa rusa nit ñi yenn ci mbir yoo xam ne mi ngi nuy gaar ci suñu biir loola di la wan ak doyati ak ak deltu gannaaw ak ak askanoo loo xamante ni dëgguwuñ ci li ñuy wax ak li ñuy jëf bokkut li ñuy wax ak li ñuy jëf bokkut dimbalante jàppalante doy loo li ñu yàlla wërsëgal loolu lu am solo la maa ngi nettali lii may nettali wallahi aoudu billahi min ashaytan rajim maa ngi muslu ci yàlla di ko nettali ngir wane ni lu nu baax le la wala lu demee noonu déedéet jublu ma ci loolu maa ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboolu dimbale fii may wax ak yéen maa ngi yor sama ñaari soxna yoo xam ñu bokk benn néeg bu ñu bokk dëkk benn néeg bu ñuy fanaan di fa yeewu loolu waxuma ko ngir loolu baax la la ñun déet dama koy wax ngir am xista bu ma namm ca ginnaaw ma jaafoo damaa ñëw di ko nettali sama way juru góor pour wan la ne la li ñi doon baax ñi ngi baax ba léegi bi ma ko nettalee sama way juru góor xamal ko ne ko ah loolu day man duma ko rus sax a nettali ndax man li may dund yaakaar naa ne bu dëppoog la loolu rusuma ko nettali fenn bi ma ko nettalee sama way juru góor mu nettali ma sama maam bu jigéen boo xam ne ki mu wax man xam naa ko ndax maa ngi fàttaliku mu baax ni balaa muy génn àddina fekk demaguma ca daara ja maa ngi fàttaliku dundam ba muy faatu maa ngi koy fàttaliku mu ni ma ni am na benn maire boo xam ne mi ngi dund ba léegi moo ko nettali ni ko ci seen jamono muy jamono ji yàggul ji may nitil di wax ko lii may wax du jamonoy salaf pour mën nga ne ne ñii baax moom ñi ngi baax ba léegi ci jamono ji yàggul ji la sama maam boobu nga xam moo jur sama way jiwu góor borom këram maanaam néeg yi nga xamante ni moom la yore woon dafa peesoon magam bu jigéen wala ba ku bokk ak moom ñibbisi ci këram amul fu mu ko dugal mu ne sama maam bu jigéen dafa génn néegam ah génn néegam jox ko borom këram moom mu jël batangam di ko lal ci ci ci néeg wujjëm di fa fanaan ci jamono boo xam ni ay dërët yooyu amul ay fer day am di matt waaye muy fanaan foofu ci suuf bi ma ko nittilee li ma yéem mooy xoolal lii boo ko nittilee tey te waxoo kañ na dañuy jàpp ne ci jamonoy salaam la fekk bërki démboo njaay la lii may nettali yaakaar naa ni ay ay ay ay ay ay juróom benn fukki at boobaak léegi sax matagul ay juróom fukki at ak nangam la yàq yàggut lool lool lool li may nit ñi fekkeewu ma ko man waaye jigéen jin ko nit ñi sama maam la gis naa ko balam di faatu kon loolu li ñu lay wan moom mooy maanaam yow bu lët mbaax tëlee rek xamal ne yow la tëj waaye am na ñuy góorgóorlu am na ñuy góorgóorlu ak xeetu mbaax gi lu mën a doon nag ci ragal yàlla ak ci dëddu addina ak ci lépp jamono yi passé sama benn sëriñ mi ngi may nit ñi koo xam ne jàng naa ci moom yàlla na yàlla sàmm ko mu ne ma am na benn mbokk bu góor boo xam ni li ko tax a li ko jotale ci soxnaam mu ni ma nit mu ne pistol yi moom ku ku ku ñu xam la moom xam na ko li ko jotale takkale ci soxna si mooy yaar yu jigéen ndaw si dafa ñëw ci ustaas bi koy jàngal di ko kalaame ndaw si ni ko ndaw si daal moom guddi du nelaw day julli rek day julli rek te moom damay ragal mu dee di ko kalaamee loolu ah bi mu ko kalaamee loolu mu ni oustaz bi woo ndongal ni ko waaw yow sa yaay daa ñëw di la kalaame ci nangam ak nangam ak nangam mu ne ko waaw yow xanaa du yaa nu jàngaloon xadis sàngam ne yonent bi Moussa na guddi Moussa na jot ñii la daan def ci naafila guddeeg nangam mu ne ko waaw mu ne ko ah léegi da ngaa bëgg ma jàng li ma jàng ba noppi toog bañ koo jëfe xam naa yàlla subhana taala yàlla woo subhanahu wa taala def xel ku góor gi ñu ku ku ndekete ñu ngi dund ñu mel nii ba léegi ñu ngi dund mooy xissa ba ma leen nittileen ci xaaralata alal jamal ba ñu laajee imam ahmad ba ndaw sa laaj ko damay ràbbu ci leer ak jullit ñi ba ma demee bay jaay sama xel dem ci leer gi ma doon ràbbu moomuma ko may laaj ndax loolu ma ca ràbbu leew na ma pour ma jaay ko wala déet imam tontu ko dane ko man yaakaaruma woon ni jigéen ñu ragalee yàlla ba léegi ni ñu ngi dund waaye muy ndaw si lii mooy sabab ku góor gi tàkk ko xissa bi ñu nekk li lu ñu xam la tamit kon daal dama laa bëgg a wax ne asalatu saalix ñu dëddu woon addina lañ ñu ragaloon lañ yàlla subhanahu wa taala ñu dëddu woon lañ addina ci mboolem xeeti dëddu wallahi li ñuy meublé lan yu taaru yeeg fauteuil yeeg lépp dañuy dee ba loo ci daloo tabaski ren balaa tabaski gi déwén ndegam dina leen fekk musaafira beneen la sa xel di bëggaat ndax addinaa mel loolu kon yaakaar naa ni doy loolu ndaw li yonent yàlla bi doy loo woon sallallahu alayhi wa sallam te nga xam ne gënoo ko gënoo ay saxaabaam xam ngeen ne Omar ibn Khattab yàgg naa tiim ab lekk rek weccax loxo bi jooy bu ñu ko laajee lu xew ci Omar mbaa jàmm ci mu ne dund naag yonent bi lekkee wuñ ko mu neexee nii ma dund ak Aboubacar lekkee wuñ ko mu neexee nii ñoom ñaar ñu faatu ba ma di ko lekk muy neexee nii mbaa du tayyibaat ya ca ajana la ma yàlla indi pour ma di ko gaawtoo lekk fii balaa maa dee daal di suuf kon daal li ma bëgg a wax mooy yëg-yëg yi fii la toll woon ci dëddu àddina nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax te xam ni doy loolu la yàlla jox bokk na ci koom-koom gi gën a rëy ñu xam ni poñe ci àddina bi dañuy dee ba ko fi Abu Dar ibn al-Ghifari benn waaye dafa ñëw fekk moog soxnaan néegam dara dara dara la dara ba dara booroo jeex luñ mën a jàpp ni lii matérielu àddina néew fa mu ni ko wax yéen ana seeni bagage yi ngeen di jëfandikoo mu ni ko ah ki nu luwee kër gi de nee na duñ fi yàgg muy yàlla moo tax suñuy bagage yóbbante nañ ko ca kër gën nar a yàgg muy àjjana moo tax dañ faa bëgg a dem moo tax bëgguñu fii dara kon yii ay taxaw seet la yoo xam ne su ma ko doon lim dinaa lim lu bare bare bare bare kon daal ma bëgg laa wax ni salafu saalih ñu dëddu woon nañ àddina ci lekk ci naan ci dëkkuwaay ci col ci ak matériel saa bu ñu nattee suñu bopp ci lii te fekk melun nii mbaa jegewuñ ko rek su yeboo ñu xam ne li ñuy askane moom wax dëgg yàlla ñoo ngi wax lu bokkut ak yàlla amal waqfatu saarita nisaau salaf wal xawfu min allah jigéenu saraf ak ragal gu ñu ragaloon yàlla subhanahu wa taala ndekete de tey nga mën a gis ñàkk a ragal yàlla gi wasaaroo ba daanaka lu ne nga mën koo dégg ci gémmiñu ku jigéen jëf ju ne nga mën koo dégg ci ab jigéen waaye jamono ja nga xam ne ñoo ngay roy salaf ci seeni melokaan ak seeni wax ak seeni jëf ragal yàlla gën a fës lool benn borom xam-xam bu mag dafay nettali mu ni benn bis dafa ànd ak jaamam bu jigéen ni ko kaay bu ñu dem a marché mu ni bi ñu demee ba marché marché bi xaw a xumba mu wax jaam bi ni ko taxawal fii xaar ma bul bouger maanaam bul bul bul bul bul naa la fekkaat fi ma la teg ah sëriñ bi dugg ci biir marché bi di jënd li muy jënd ñëwaat rek fekk jaam bi dem na yoon mu mer mer noo xam ni ba mer mi feeñ ci kanam bi mu wax ko dugg ci biir kër gi mu ñëw fekk ba jaam baa ngi toog jaam bi sikki xool ko xam ni sëriñ bi mer na mu ne ko yaa mawlaaya laa taajal alayya sama sang bul gaawantu de bala ngaa mer di ko sëpp ci sama kaw da nga may laaj lu ma tax a jógee fa nga ma tegoon ba pare nga doog a dal ci sama kaw sëriñ bi ni ko waaw yow lan moo tax ma ne la bul fa jógee nga jógee fa mu ni ko yow da nga maa bàyyi ba dem te bàyyi woo xel yëgoo fi ma bàyyi ndekete fa nga ma bàyyi gestu naa ndeyjoor ak càmmoñ gisuma kenn kenn kuy jàng alxuraan wala kuy tudd yàlla man nag li ma gëm mooy damaa tiit ni suuf su ma taxaw te kenn jàng fa kenn tudd fa yàlla yàlla fan naa ma taxal suuf sax moo tax ma jóge fa ñibbi allahu akbar xoolal bii dégg-dégg ab jaam bu jigéen fan ma bàyyi seet du woo ko yaa ngi ma bàyyi ci place boo xam ne kenn jàngu fa alquran kenn tudd fa yàlla te tiit naa bépp barab ci kaw suuf bu kenn tuddut yàlla kenn jàngu fa alquran suuf sa mëtëx mu ni moo tax ma ñibbi si toog ci kër gi moo gën a jur jàmm sëriñ bi dafa yéemu ci yàlla mu ne ko yow jugal génnal sama kër goreel naa la ngir yàlla demal mu ne ko lii nga defati moo gën a bonati ndax yow borom xam-xam bu mag nga mënul xëy subaak ngoon di la liggéeyal di am ñaari tiyaaba léegi xañ nga ma benn tiyaaba mooy su ma ñëwee dootuma liggéeyalati xoolal ñii seen ak dégg-dégg xoolal ñii seen ak ragal yàlla xoolal ñii seen ak tolluwaay kon moo lay wax ni nga ñuy askanoo dëgg dëgg dëgg dëgg jege goon ko ba léegi benn borom xam-xam bu